taalibe yi ñu njëkk a tuddee gaayi ñu ngi jukkee nettali bi ci téere jëf ya saar fukk ak benn ak saar fukk ñaar saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu nañu bamtu nettali bi weesu benn naka la korne wute woon ak ñi ëpp ci ñi dul yawut ñi ëpp ci ñu dul yawut ay xërëm lañu doon jaamu Corneille gëmoon na yàlla te toppoon na téere kóllëre gu jëkk gi ñaar lan la yàlla woon Pierre ci biir peeñu mi yàlla jëkk na won Pierre ne amatul rab bu dagan ak bu daganul ganaaw bi Yeesu deewee ci bant bi ñaareel bi ñëpp ñi gëm ne yéesu mooy seen musalkat yàlla selal na leen ñépp ñi gëm yeesu benn lañu ñooy mbooloom ñi gëm ñetteel bi ñi dul yawut xarafuñu te gëm yeesu sel nañu ci bëti yàlla kon ñi dul yawut ak yawut yi ñoo yem ci kanamu yàlla ñett lu tax xel mu sell mi jox ñi dul yawut te gëm mayu wax yeneen làkk def na ko ngir Pierre xam ne yàlla baal na leen seeni bàkkaar te bokk nañu ci mbooloom ñi gëm